Bonjour, Mesdames, Messieurs. numéro 60, situation de la pandémie COVID-19 au Sénégal. Ce jeudi 30 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1161 tests réalisés, 51 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 4,39%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 40 contacts suivis par nos services. 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao 1, Maris 1, Touba 8 et Maquet 1. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs est déclaré guéri Dalal Jamm 7 Touba 5 Ziguinchor 3 et Diamniadio 1 deux cas en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann principal l'état de des autres patients hospitalisés est stable dont 334 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 589 sous traitement. Le ministère de la Santé sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. asalaamaaleykum maa ngi fii ñëw di leen di jottali lim bii ñu jot tey ci mbas mi tudd Covid 19. ci bésu tey bii di alxames di fanweeri fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat yii ci examen virologique yi ci junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak benn dellusi nañu am doomu jàngolo ji yooyu nag ñu ngi tëddee nii ñeen fukk moom lañuy wax contact yi nga xamante ne suñu bëri bu liggéeykaay yi ñoo leen di saytu fukk ak benn moom la wax transmission communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi benn ca mbaaw benn ca Maris juróom-ñett ca Touba Mbàkke benn ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj fukk ak juróom-ñeent biñ leen saytoo gisatuñu doomu jàngoro ji ci ñoom wër nañu ñu ngay jóge ci bëju forikaay yi ñuy wax dalal jàmm juróom-ñaar wër nañ fa Touba juróom Sigicoor ñett Fann trois ñett Diamniadio benn ñaari cas ñu ngi ba tey suñu service réanimation yi ca hôpital principal ak ci hôpital Fann ñi nga xam ne ñoo fa tëdd des fa seen wér-gi-yaram mu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ba mbas mi ñuy wax Covid 19 duggee ci suñu réew ba léegi am nañu juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett yoo xam ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent wër nañu juróom-ñeent génn nañu àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ñu dese tey ci ñu ñuy faj juróom téeméer ak juróom-ñett ak juróom-ñeent ministère de la santé et sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan wi ñu gën a topp digtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee kenn du am doomu jàngoro ji du ñu ko wàllante mbas bi ñu naan Covid génn ba faw si suñu réew bi tudd Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam.